ñëwaat di am mbégte bu baax a baax ñëwaat fii ci euh, mariage bi nga bokkoon ci famille sénégalais ñu taxaw ak kenn koo xam ne mën nañu wax déjà euh, mi nga xam ne moo euh, producteur bi nga xam ne di film boobu noonu di suñu papa di suñu xarit père ñu ngi lay nuyu di la siyaar maa ngi leen di fay nuyoo di leen sant di leen gërëm mm-hmm. waaw père tey ñu fekk la fii nga xam ne di sa mën nañu wax sa doom waaye bokk ci sa élément yi nga xam ne doon nañu joué ci théâtre bi nga xam ne moo di euh, famille Sénégal di fantasy yi tey bi nga ñëwee gis ci mbooloo mi lan waaw di kontaan di bég parce que euh, euh, Fanta Seydi di Ousseynatou dafa di sama xarit di sama doom di sama collaboratrice parce que en fait moom bi ko sénégalais yi di découvrir di ko xam ci ñun lañ ko xamee te boobu ba léegi mi ngi liggéeyak ak ñun Euh, donc ci dikone la commencé mais avant dikone ñun dañ ko jëlone pour mu defal ñu ben publicité defe ci publicité bobu la ñëk a génnee ci écran télévision après ñu jël ko ci dikone après ñu jël ko suñu yenen projet ñu jël ko ba jël ko ci famille sénégalaise donc le nit la ko xamné ne euh, yàgg nañoo ak mom def minimum def nañ ak mom 7 ans ou huit ans yo xamné ne ñu ngi koy liggéey té wolof néna lu yag dëgg la euh dëgg euh mën nañ japp né aussi yar la Euh, yar boobu mi ngi ci moom fulla boobu mi ngi ci moom fayda boobu mi ngi ci moom euh, te wóoroon na ma ne man dina am bés bu mel nii donc euh, sunu nit la sunu doom la sunu xarit la kontaan nañ trop ci bisam bi kontaan nañ ci ñëw bi di ko ñaanal yàlla bis bi doon njiglaayam moom ak jëkkëram ñu ànd ànd bu rafet ñu ànd ànd dooleelante ñu ànd ànd jàppalante ñu ànd ànd wërsëg ñu ànd ànd boo xam ne day doon seen njiglaay ñoom ñëpp alors papa tay man nga ma wax euh, fantasy di kan la intégré wu ci li nga xamné modi moo Pikine production. Wa mom la la expliquer légui def na fantasy, di bi mu njëkkee joué ci ñun euh, ça doit être en 2016. wa 2016 da wara don donc boobu ak légui ça fait huit ans donc euh, comme ni ma la ko waxé sank ci ben publicité publicité moko indi won ci ñun. dañu doon def publicité soxla woon benn casting ñu proposer ñuko mu ñëw ñu gis casting bi intéressant ñu ne ko pourquoi do def cinéma mu ne pourquoi pas mu commencé ci dikone ba léegi ci famille sénégalaise donc 8 ans mi ngi ni ñi ngi liggéey ak mom donc bi ñuy commencé ak mom d'ailleurs xalé bu ndaw la bo gisaatee image yooyu gis ko tay di nga xamné comme niko waxat niko tubab di waxé beaucoup d'eau à couler sous les ponts ah, parce que yag na et comme nima ko waxé sank rek je me répète wolof nee lu yag deug la lu yàgg dëgg la mais Fafa tey yan qualité nga ma mën wax ci Fatou Seydi mi nga xamné mom ngeen ànd doon doon liggéey euh, bi ci ñëk moy professionnalisme xam nga professionnalisme mooy euh, sa heure liggéey doo ko tardé sa jour liggéey doo ko tardé euh, ma raconté leen benn anecdote mardi c'est-à-dire euh, il y trois jours dama ko fekk fi ñuy tuddee fi ñuy tourner mu tëdd ci benn canapé euh, dëgg mu quoi ma ne ko mais yow lan moo xew xam naa mariage bi moo diis yow mu ne ma non du mariage bi de dama feebar ma ne ko ah bon da nga feebar mënu woon toog sa kër mu ne non non il faut ma ñëw tourner donc pour vous montrer quoi c'est-à-dire que moom nit la koo xam ne même bu feebaree wala yaramam sutante day ñëw pour honorer contrat am donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour son contrat qui a beaucoup de respect pour les gens ok et qui a aussi beaucoup de respect pour elle-même xam nga li wax rek euh, nit bo gis mu am autodiscipline manam nit bo xamné euh mo c'est parce que dafa bëgg bopam donc amna autodiscipline bëgg na suis euh, fonk na bopam wa comment vas-tu Daya ça va donc donc fonk na euh, fonk na nit la ni yar nañ ko yar nañ ko fañ ko et que euh kuko sen boo ko jegee naw ko. jërëjëf jërëjëf Gracias.